برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان jox ñu ñuy naan moom it màkk la wàccee xaa miim tanzilul kitaabi wàccuk téere bi mi ne laay bàyyi ko na ci yàlla al azizi ku daa ji not ci kàttanam alxakimi ku daaji xarala inna fii samawaati naka nekk na ci bindug asamaan wala dég suuf laayatin kawtéef lil muminin ñeel ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla wa fi xalqikum nekk na ci bind gim leen bind wa maa yabuthu ak la dana tasaare ko min daabatin ci aji dox ci suuf laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yuqinuuna danañu wóolu dajeeg seen borom waxtilaafi leyli wutale gi mu wutale bëccëg guddi gi wa naareeg bëccëg wa ma ansala ak la wàccee na ko laaw yàlla min asamaay ci asamaan min risqin ci wërsëg faaxiya mu dundal bii ci moom alaada suuf baada mawtiyaa gannaaw ak deeyam wa tasrif riyaa ak soppi gi muy sopp ni ngelaw yi benn mu sedd wala mu tàng jóge ndeyjoor càmmooñ penku sow yépp la ayatin kawtéef la kenn xamul ngelaw lan moo ko wal ba muy ñëw kon kawtéefa ngoog li xaw mi ñeel nit ñoo xam ne yaqiluun dañu am xel tilka loolu ayaatullaahi mooy ak kawtéef yàlla natluwaa no ngi koy jàngaale ki ci yow bilàq ci dëgg kon nag fa bi ay xadisin ana ban waxtaanati baad laay gannaaw wu yàlla waayaati ak wu ak kawteefam yo mi noona la ñuy gëm bu fekkee weddi nañu bii bay na loolu waylun li kulli afaakin atim lu ko tax a wàcc nadri ibnul xaaris li ta li li alquran wàcc ci moom bari na lool li wàcc ci moom ci ay alquran di ko jajj bari na waaye yàlla dogal na nekkuy texee di la moo tax ba tuubul Nadir Xaaris ab jula la woon day dem iraan di dellu si ku mën a jàng la mën naa liir bu demee mu jënd xissa yi seen film yooyu ay rustum ak yooyu bu ñëwee toog ci penc mag di ko liiral gaañi naan lii dey la Muhammad di liir rek naan yàllaa ko yónni Nadir ibn al yàlla ne kookoy ku mën a fen moo tax mu ne wa way waylun ca safara li kulli affaakin ñeel na bépp duudalaa koon atimin ku daa ji bàkkaar yesma koo xam ne dana dégg ayaatullaahi alquraan yàlla tutla defi jàng ko ali ci moom su ma yassarru topp mu nuur rek mustakbiran mu rëy rëylu an lam yasmaaha daanaka déggu ko fa bashiru xamal ko bi aadaabin ci mbugal alimin mu daaji metti wa iza alima bu xamee naa ayaatinaa ci suñu kawte cheyan dara ittaxasa mu jàpp ko usual mu di luñ yejji ulaayika ñooñu lawum ñeen leen azaabun mbugal muhinun mu daaji doyadal leen min waraayim nekk na ci seen gannaaw jahannam safara wala yuxni du jëriñ anum ci ñoom maa kasaboo lépp lu ñu fàggu cheyen tus wala mattaxadu lu caagan la ñu jàpp min doonillaahi awliyaa ñuy méngoo seen mbir wala um ñeen leen azabun mbugal mu daa ji màgg haza alquran ji hudan njub la wala dina ñi nga xam ne ne kafaru dinañ bi ayati rabbihim ci alquran yi seen borom lawum ñeen leen aadaabun mbugal moo xam ne min min rijzin ma ngi bàyyeekoo ci xeetu mbugal alimin moo xam ne aji métti la mu bàyyi na loolu mu ñëw ci ngëneelu yàlla ci doomu te doomu bu ko doon lim du ko mën a jeexal ndax ay ngëneel la yoo xam ne yu yu yaatu la moo tax mu ne allahu yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne saxara tàggan na mu lakum ñeel leen albaxra géej li tajriya ngir muy daw alfulku gaal fii ngir mu daw gaal gi fii ca géej ga bi amrihi kattanam ak ndigalam wali tabtaxu ak ngeen di dugg ci gaal gi bay sàkku ji min fadlihi ci ngëneelam wa laalakum ndax yéen na ngeen mën a sant yàlla wa saxara yàlla la lakum ñeen leen maa fi samawaati li nekk ci asamaan wa maa fi l ardi ak li ci suuf jamian lépp mi nu bàyyi ko ci yàlla inna fi dalika nag aji nekk la ci loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yatafakkaroon danañu xalaat kul li léegi na ñeel ñi nga xam ne amanoo gëm nañ yaxfiroo ñu baal ñu balu ñu ñaan njëggal li léegi na ñeel ñi nga xam ne laa yarjoona duñu yaakaar ayyaama laayi xew-xewi yàlla yi duñu yaakaar dajeg yàlla ci xew-xew yooyu li jisiya ngir fay yow man bés xaw man aw nit bi maakaanoo ci lañ nekkoon yëg si bone di fàggu ko loolu lañ yaakaarut man amila ku liggéey na saalihan jëf ju yiw fa li nafsi yi ñeel na boppam wa man asaa ku ñaawal na it jëf fa alayha boppam la koy def su ma turjauna def na delloo leen ilaa rabbikum ngeen jëm ci seen borom bay na loolu mu ñëw ci wattandikuloo bani israil wattandikuloo julin ñi ñu mel ni yahudiya ñu mel ni yahudiya ci ñàkk topp seen ab téere ñàkk topp seen ab yonent ñàkk jëfandikoo seen diine lolou lay wax ni wala qad aataynaa joxon nañ bani israila alkitaaba tere ba wal xukma ak atte ba wa nubuwata ak yonent ga wa razaqnaahum ñu wërsëgal leen min tayyibati ci way teey yi wa fadalnaahum ñu gënal leen alal alamin ci binde fi wa aataynaahum ñu jox leen bayinaatin lay wex min al amri ci ndigal la fa maktalafu wute wuñu illa min baadi ma jaahum damay gannaaw bu dikkalee leen al ilmu qam qam bagyen ngir réer baynum seen diggante inna rabbaka nag sa borom yaqdi day atte baynum seen diggante yowmal qiyaama fi maa kaanoo ci lañ nekkoon yaxtalifuuna di wutee fii ci loolu ma jaal naaka yow it yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu def la ala shariatin nga nekk ci yoon nekk ci sharia min al amri ci digle ak tere fattabia toppal ndigalal yàlla le wala tabi bul topp awa allazina bànneex yi ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu innahum ñoom lan yuxnu su fekkee topp nga leen day bu la yàlla jàppee ñoom lan yuxnu du ñu jëriñ an ka ci yow min laay ci yàlla cheyen tus way na daalimina naka way tooñ yi baadum leen ci ñoom awliyaawu baadin ñoo méngoo ñenn ñi wallahu yàlla walla waliyul muttaqin yàlla moo méngoo mbiri ñépp ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla haada lii may nettali basair ay xamle la dinaa si ñeel nit ñi hudan njub la wa rahmatun yërmande la li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yuqinuuna danañu a dajeg yàlla am xasiba ndax dafa joortu la ci ne ñi nga xam ne itaraxoo sakku nañu a asayaati yu bon ya ndax dañoo joortu buñ ko joortoo kon ñu ñàkkam xel ñu joortu ñu def an najaalum ñu def leen këllazina ni ki ñi nga xam ne amunoo gëm nañ waa amiloo ñu jëf asaliyaati farata yeeg naafila yi saawun aji yem la maa yaawum seen dund seen bu fekkee li leen joortu saa kon bon na maa yax kumoon li ñuy attee xalaq bind na laahu yàlla samawaati asmaan wala ard ak suuf bil xaqi ci dëgg wala tijza wala tijza ak deefi faykul nafsin bépp bëkkan bi maa kasabat ci li mu faggu waxum ñoom laa yoddu la mooy defu tooñ leen ba lu waay am rek na xam ne moo ko liggéey amul kenn ku yàlla di tooñ ba jox la loo xam ne moomu loo ko wala am loo def mu ñàkk la ko jox bàyyi na loolu mu ñëw ci lenn ci seen jëf ju ñaaw ak seen ak pay yowmal qiyaama mu ne afarayta ndax dooma solo mañi ñi taxada ku jàpp na ilaahu yàllam hawaahu muy bànneexam rek jël lu ko neex rek def ko mu nekk yàllam daldi jëlu la neex rek fal ko sa fal ko mu nekk sa yàlla benn yaa ko tabax wala yaa ko liggéey wala yaa ko defer wa abdallahu réeral na ko ilaahu yàlla ala ilmin ànd ak xam-xam wa xatama yàlla moo kaste linkaañ ala samihi ci déggam wa qalbi xolam wa jaala mu def ala basari ci ci gisam gishaawatan muraay fa man yahdihi ana kan moo koy jubalati min baadillahi gannaaw yàlla afala tadakkaruuna xanaa du ngeen waaru wa qaalu ña nga naan maa hiya de dee ilaa xayaatuna lu mooy sun dund bi rek duniya bi ci bi daa ji jege ci àddina na mootu nu dee wa naxyaa nu dekkaat dekkiwaat déedéet wa maa yow li ku naa du alag ñu ila daaru lu mooy jamono jamonoom ku fi yàgg rek da nga waaye ku dee jeex nga waaye doo delsi waaye ñun kay nu dund nu nu dee nu dundaat déedéet umaa yoliku naay ret daaru loolu la ñu gëm wa maa lahum yàlla ne ñeelu leen bi zalika ci wax jooju min ilmin amuñ ci benn xam-xam in hum deen ñoom ilaa yadunnuuna lu mooy dañuy joortu wa ida tutla ndem def na jàngaalim ci ñoom ayaatuna suñu ba bayyinaatin mu nekk di aji leer maa kaana nekkul xujjatum seenu lay ilaa an wax ni indi leen biyaa bàyyi naa suñ bàyyi in kuntum dem nekk ngeen saadiqin di way dëgg kul waxal ne allahu yàlla yuxyikum moo leen di dundal suma ma mu rey leen suma ma yejmaukum topp mu boole leen ilaa yawm alqiyaama laa rey ba dee sikk fii di nekk ci walakin waaye ak tanaas li gën a bëri ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu walilaayi ñeel na yàlla mulku samawaati moomel ak asamaan wala dëg suuf wa yawma taquumu bés bi taxaw saatu bés pénc yow may sin keroog yaxsuru lay perte almubtuluuna way yàq ya watara gis nga kulla ummatin bépp xeet jaasiyatan ma nga boof ca kanam ay jëfam ak ci kanam ab yonentaam kulla ummatin tuddaa def na ko woo ilaa kitaabiya jëm ci téeréem naa leen al yawma tey tujzaw na def na fay leen maa kuntum li ngeen nekkoon ci àddina taamaloon di def ko ñu ne haasa lii de kitaabu naa mooy suñ téere moom day waay yantiqu day wax rek aleykum ceen bi la xaq ci dëgg téere bi day waay dëgg rekk lay wax du sos du yokk du wàññi innaa ñun yàlla ku naa nekkoon nañ na nastansixu di sotti di sotti maa kuntum lépp lu ngeen nekkoon te amaloon di def ko ñun ñoo ko doon sotti ci benn registre benn téere di ko garde fa ama léegi na ndaal ñi nga xam ne amunu gëm nañ yàlla wa amiloo ñu jëf alsaalihaat yi farata yeeg naafile yi fa yudxiluhum dana dugal leen rabbum seen borom fi rahmati yi ci yërmandem zalika loolu huwa moom alfawzu moo dik texe almubiinu guddaay ji biir wa ama léegi na ndaal ñi nga xam ne kafaru weddi nañ awalam takkun ñooñ day dañ leen di wax naan ndax nekkutoon ayat yi sama alquran tutla dee fi jàng ko aleykum ci yéen fastakbartum ngeen rëy rëylu wa kuntum ngeen nekk xawman diw nit mujrimin ñi di way def bakkaar fa ida qila ndem waxeef na ne inna waadalaay naka delu yàlla xaqun dëgg la bu saatu bis pencit la rey ba déet sikk fiyaa ci dikkam xultum ngeen ne maa nadri ñun xamuñu ma saatu lan moo di bis penc ñun xamuñu ko inna dunnu naka deen ñuy joortu ilaa dannan lu muy njortu wa maa naxnu den ñun bi mustayqinin ñu di way ñuy ñuy wóolu loolu wa badaa feeñ na lawum ñeel leen sa yaati ma amiloo way ñaawi la liggéey nañ ko wa xàq wàcc biim ci ñoom maakaano la ñu nekkoon yastasiuna di yejji ko wa qiila waxeef ne al yow ma tey nag muy bés pénc nan saakum ñu nit dañ leen di fay ndax yàlla du fàtte nan saakum dañ leen di fay kama nasiitum nag ngeen fàtte woon liqaa yow mi kum day rek seen bés bi azab bii wa maawaakum seen takkuwaay naaru mooy safara wa maa lakum de di ñeel leen min naasireen ci way dimbale daalikum loolu le seen li ko waral bi annakum ndax yéen ittaxastum jàppoon ngeen ci àddina ayaatillaahi alquran yàlla husuwan mu di lu ñu yejji wa garatkum war leen alxayaatu dund bi adduniyaa bu daa ji jege fal yow ma tey nag laa laa yuxrajuuna défut génne leen minhaa ci safara wala hum deen ñoom it yustaatabuuna dee fi yedda leen te bàyyi leen yedda leen ba ba sottal baleen loolu duñ ko am làq na ci yàlla génne na ci ay xéewalam yu bari yu mu jox nit ak gënal gu mu gënal doomu aadama ci yeneen xeet yi ndem saar wi lamboona di lim ay kawtéef ci kawnu bi ak i tegtal ci gox yi yu ñuy tegtaloo am ak yàlla nee na ndem saar wi saxaloon na ne ku liggéey lu baax danañ la fay ku liggéey lu bon danañ la mbugal ndem saar wi loolu yépp wax na ko kon ci mujj gi kuy wax ay xéewal danga war a delloo njukkal ka doon joxe xéewal yi rawatina bu fekkee ki doon joxe xéewal yi mu yelloo tagg wu rafet yelloo melokaan wu tedd yelloo ñu jaamu ko bind asamaan bind suuf bind doomu aadama kooku mooy am kibriyaaw kooku moo am ak mag kooku jëmmam jë moo mat te sell lépp lu di wàññeeku sori ko kooku ak amam amul tàmbali ak mujjam amul fu muy jeex kooku moo sell ci gépp wàññeeku kooku mooy borom kibriyaaw tabaraka wa taala moo tax mu ne kon mu mottalee ay waxam loolu pour jox kooku njukkal ndax li nga xam ne moo am kibriyaw yonent bi nee na <clears throat> alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na ko waxal nit ñi ne alkibriyaawu ridaa yi man yàlla kibriyaawu muy rëy rëylu rëy ci boppam man yàlla sama mbubb la ku ma ci fekk nag ci sama mbubb su ma la ci fekkee nga xam te it ku ko natt mu ëpp ndax amul kenn kuy jéem a rëy rëylu lu may mbubb moom mu ëpp na la lu tax waxtu wi ngay def tabaxtur di rëy rëylu ci benn néeg ci génn kër ci benn réew ci benn dëkk ci génn kër ci benn néeg ci benn lal ci benn béréb fa nga naan tekk rek nelaw fa doo mën a yëngu doo moomati ci sa ci sa bopp dara te bu buñ la téyee ñaari fan lekkuloo rëy ga dal jeex yelwaani sax da nga ko mën yelwaani ma nga rëyoon danga ko man kon nag kon moom bu bëda la ëpp da nga koo da nga koo yelloo wut te boo lekkee loolu nga lekk bu ñu toogee fii balaa gën a ëllëg su génnul rekk nga daal di bëgg alku soo maree di bëgg alku sooy naan doo mën a continuer naan sooy naan naanal rek bul baa léegi tey nga alku booy lekk lekkal bul baax léegi nga dal di alku kon yow sa lépp ak manki la kon rëy def la warut koo xam ne sa njëlbéen toqint maniyu la sëg muj médd kenn soxlawul ñu fab sànni ji gas bam ko suul lemoo xasawal nit ñi mu ne kon fan nga jëlee ak ak rëy rëylu waxtu wi nga nekkee ci sa digg doole foo toll mel na mbuusam tojalan ci sa kanam nga uuf ko foo dem yóbbaale ko mu ne kon kibriya warul la mu ne kon nañ delloo njukkal ki nga xam ne moom rek moo yelloo ak kibriyaaw loolu wax ne fa lillaahi ñeel na yàlla alhamdu cant rabbi samawaat kooku mooy borom asamaan wa rabbil ardi kooku mooy borom suuf wa rabbil alamin kookoy borom bindeefi mënoon na wax ne rabbi samawaati wal ard yépp wa rabbi naas waaye bu ci nekk da koo indi rabbu ndax dañoo bokkul yàlla mooy sama waat mu di mbindeef mu nekk ci kaw ñu yenu ko te gisoo li ko yenu mu dim téeg moo xam ne du bënn du maxe du yàqu nga fekk ko fi bakk ko fi ñëpp fekk ko fi bàyyi ko fi xamoo kañ la te xamoo kañ lay jeex moo tax mu waxal ko ne mooy sama waat mu ber ko daal di ne wa rabbul ardi ndax su ko ba mbësta noonu da nga naan rek asamaan ak suuf te ku ne dafa am mbiram boppam mu ne la waa rabbul ardi waxoon naa la nen boobu di feey ci jaww fadaau la nihaayi boobu wa rabbul alamin mooy borom bindeef yépp wala hoo ñeel na kooku alkibriyaawu ak réy réylu fi samawaati ci asamaan ndax mooy def mooy dindi ku def mu laaj la lu tax te moom li muy def kenn du ko laaj lu tax kooku am alkibriyaawu fi samawaati wal ard wa huwa yàlla al aziz mooy aji not ci kattanam alxakim mooy aji xarala ciy njëfteef